envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant. maintenant. ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaaraan di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people 221 di nuyu kilifa diine kilifa aday di ñaanaat réew mi di Sénégal yàlla na fa sunu borom dolli jàmm ku ne gis na euh, tey wax dëgg yàlla euh, arena la nga xamante ne moo fa xew mënuma ko tuddee méga meeting waaye man bi ma juddoo ci histoire ba tey tey laa mos a gis ci histoire politique ñuy def meeting entrée fay te teewul euh, yaakaar naa guichet fermé la waaye ci noonu it ñu toog ak sunu papa ku ne gis na wax dëgg yàlla fan yee euh, ndogal li nga xamante ni moo ko dal euh, alhamdulilah nag yàlla sunu borom teggil ko ko ba tey mu mën a toogaat fii di wax tout d'abord man dama koy gërëm parce que papa la joo xam ni heure bii ku ne xam na ne guddi na mais dama ko woo mu ne ma non téye mon fils bul woote ñëwal directement donc loolu c'est à saluer moom lañ fa yéenee seqal waxtaan papa maa ngi lay di la fay la ñaanal yàlla. parce que ñaan bi moom am na ci solo lool lool lool li ma dal nag ndogalu yàlla la bu ma waroon arrivé ma du ko muñ loo suñu borom di ko santaat di ko gërëm parce que ni oto bi def yëpp euh, mu ngi ci sama xel quitté ma ba léegi parce que c'est comme si les images me revenaient mais alhamdulilahi rabbil alamin ba nga xamee ne génnee naa ci bakkan parce que mënu naa ci dem ba faw mais maa ngi gërëm yàlla sant ko bu baax a baax a baax a baax euh, gëm ni rek ni ñaan yi nga xam ni nii moom lañ may ñaanal euh, lu am la te lu dëgg la ci ñiy ñaan waaw ma ci njëkk ràññee muy sëriñu ñëpp sëñ Mountakha Mbacké bu sëñ Touba euh, sëñ Mountakha Mbacké boobu buñ ci jéggee ma jaar kër sëriñ fàllu sëñ Cheikhouna Mbacké muy sama wasila Euh, moom it euh, vraiment mi ngi ci ñaan yi gannaaw sëriñ si yëpp ci kër diine bu ci nekk man yëg naa ni safoo nañ ma faale nañ ma parce que ñaan sax dañ koy yóbbante kon nag euh, li nga xam ne nii xam naa ko am ko ci ñoom ñëpp maa ngi koy delloo suñu borom di waqirlu ci suñu borom it di leen wax nañ gën a yokk ñaan yi rek suñu borom defal ñu sutura ak nga joo xam ne nii Euh, nii ñu koy defee ba ñoom ñuy kontaan di ñu yónni ay message yoo xam ne nii wax dëgg fa yàlla bi nga xam ne nii amoon nañ gàllankoor gu tuuti euh, message ñëw nañ ñaan yi yegg si nañ parce que dañuy envoyé ay euh, vidéo ñii di ñu envoyé ay message yoo xam ni SMS la te liñ ciy wax yëpp dégg nañ ko ñu wëlbatu it di leen ñaanal ñoom seen bopp yooyu yëpp ci firndey déggoo bi la ak xamante goo xam ne gu sell la. ay jullit bu ñu nekkee defe naa ni li gën a am solo mooy ku nekk yéene sa moroom jàmm di ko ñaanal loolu it lu baax la parce que day yokk déggoo bi day yokkit lu bari xame bi ba ci li nga xam ne lii nar na gàllankoor seen diggante entre le public ak moi qui suis l'artiste ak euh, samay am di jàmm ak ñoom ñëpp donc ñaan day dundal xol ñaan day dundal diggante ñoo ngi ñaan suñu borom loolu yi muy def yëpp. mu defal ñu ko ci barke Mouhamadou rasulillahi sallallahu alayhi wa am na solo papa euh, tey fi may njëkkee ñu gis euh, père nga nekk doyen ci wàllu aar mais tey dañu gisaat beneen beneen beneen Lamine Ndiaye boo xamante ni bu sénégalais yi bëgg beneen Lamine Ndiaye boo xam ni bu nit ñi bëgg par rapport ak âge bi parce que man keroog bi ma la gisee ci écran bi nga dem ma ni waaw mais père ak euh, kàttan gi physique bi lan moo la poussé ci nga dem. waa xam nga. dem bi loo xam ne nii dama ko sabablu eh, dem bi lu dara lu mooy eh, nekkoon ci liggéey boo xam ni ñoom seen jëmmi bopp ñoom ci boole ci këla boole safoo la faale na la donc bu la woowaatee ne la ñëwal damay eh, feete maanaam liggéey bi nga xam ne nii suwer nañ ko ba toir fakall macha allah am na lu mucc ayib lu ci feeñ ci public bi yaakaar nañ nañ kontaan looloo ma fa yóbbu donc ils m'ont fait porter le projet donc ma ñëw fa fekkoon na aussi tamit ma bëgg a gisanteeg sawaay muy sonk parce que dafa amoon benn lu sew lu tuuti lu doxoon suñu diggante euh, nekkuñu fii di éclairer mais dama xam xamul woon ndax moom téye na ko wala téyoo ko ba mu fa demee le simple sourire bi mu kii rek laa xam ni téyewul dara ma am xel bu dal kontaan ci loolu lool di ko remercier parce que. il faut être majeur et il faut grandir et je sais qu'il est majeur et il a beaucoup grandi contrairement bi ma koy njëkk a xam donc il euh, y a quelque chose qui s'est passé entre lui et moi euh, te ma kontaan ci lool ça a fait renaître des sentiments encore euh, davantage yoo xam ne nii yal na ko yàlla gunge te dàqal ñu seytaane loolu rek moo fa am te wóor na ma ni de son côté et de son bord Euh, dara téye ko te xam naa ni lu waroon a arrivé la euh, pour que mu gën a dund xame bi gën a dund euh, donc noonu laa ko jàppee woon te yaakaar naa ni ni ki moom ni man bien que bëggoon naa ko gis hopital mais président bi laa gis te président ñëwee rek dañ ni Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye donc bi mu ñëwee ma kontaan ci lool vraiment dafa mel ni gis naa ñooñam waaw donc je me suis attaché à ça waxtaan ak moom comme ni may waxtaan ak ko vraiment je lui ai livré un sentiment boo xam ne nii euh, d'appartenance extraordinaire mais amicale donc euh, moom xam na te yaakaar naa ni euh, nekkul ku ñuy gaaw a nax nii ci ay sentiment ni ay bluff man jamais doomu làkkat la bambara pire la kenn du ma jàngal yooyu ci lenn loo ma jox mun naa la ko delloo foo ma tolle fa laa yem bëgguma nit ki di ko xaruñal wala muy gis loo xam ni c'est un peu maladroit de ma part parce que man it du ma ndaw xam nga magla laa nii peut-être que ñi ñee xamul rek mais franchement en toute sincérité euh, nekkul ci dox mi nag nekkul ci ay activités yoo xam ne ni dinañ gis ni kii kat màgg màgget na mënatul dara wuyoowu ma sax loolu moom damay def sama kéemtalaay kattan pour dëgërlu te xam naa ni yàlla mi ma koy jox kon du ma def lu mooy gërëm ko kii di ma ko jox parce que moo moo fi nekkal ñëpp moo moom ñëpp donc euh, je remercie le bon Dieu dama me laisser encore vivre jusqu'à quand je ne sais pas mais daal maa ngi ñaan yàlla waaw gën fee yàgg gën fee ñor aussi tamit ci wàllu xel xalaat euh, parce que dama naan xel ak xalaat teen la ñu xool ci lay rot donc euh, bismillah Euh, pour ñëwaat ci accident bi nan la demee euh, ci retour bi ak accident bi nan la la dikkee. waaw accident bi moom dañ ma jox auto ne ma bon mën nga ñibbi comme tu as fini non seulement prestation bi mais aussi xam na ni comme borom kër nga euh, tu as envie de rentrer chez toi may leen effectivement mais ci xel ak xalaat ñu wutal ma oto boo xam ne nii ànd ak chauffeur bu baax a baax a baax yiw ci yoon wi ñuy waxtaan il s'est rien passé di dem di dem di dem di dem di dem ba ci yàgg sax mu am ku ñu jiitu ñu corné ko corné ko corné ko nangul la droite pour ñu jàll ko donc chauffeur bi ne xaaral kii certainement il se di dit euh, ne def koy doubler donc bi muy progresser ak vitesse beeg yooyu yëpp tout sax waa ji di ko gën a serré à gauche. muy déporté wu di déporté wu di déporté wu ba ci yàgg si rek ndekete yoo yéeg na ci plateforme bi nga xam ne mooy séparé des deux des deux euh, euh, passages donc loolu tël ko oto bi jóg kaw mais ni kuy wëji asamaan jékki-jékki daal di wàccaat de l'autre côté an allant vers Saint-Louis nous nous venions vers Dakar donc kon tourné na mais fi ñu jegee oto bi oto bi jëkk-jëkk mel ni luy départ nii di yëngatu di yëngatu ba ci yàgg sa réew daal di dem d'une vitesse boo xam ne ñun sax daf ñuy jaaxal diree ko à onze mètres estimation la quoi donc bi mu diree ko noonu dem ñun ñoo ngi ci biir oto bi on n'a pas bougé du tout ba ci yàgg sa mu daal di commencer ralentir di tourner di tourner di tourner yooyu en général rap moo koy def quoi parce que dañuy wax ne ñu foofu baaxul man on me l'a dit plusieurs fois mais bi ñu suñu oto defee noonu daal xam naa ni xel ni loolu ma am na fa donc euh, nit ñi daw si daal di téye oto bi jéem ñu génne porti yi bloqué ba mu yàgg rek ñu daal di vitre bi nga xam ne nii man falaa laa boobu waaw ñu ñaar doo nga nekkoon ci oto bi moom dënn bi moo dal ci volant bi moo tax ba ñu demee hôpital aussi euh, toogu fa dañ ko defaral euh, yaram wi rek après mu daal di ñibbi bon man maa fa desoon pourquoi parce que il fallait que ñu defar ma benn scanner boo xam ne seetal ma yaram wi yëpp est-ce que amul damm damm buy làqu yooyu parce que vraiment te pénible ba pare nag euh, nit ñi aussi ak seen wax boobu déglu naa li xew Dakar ñuy wax ay énormité yoo xam ne loolu moo mën a xari yu mel ni nga dem guerre ba ñibbisi au lieu ñu ne la bravo parce que am nga ndam ci guerre ba mais déedéet lu ñu la def di la yekk loo xam ne lu toll na xeme la seere loolu sama xol sama xol gënaat jóg man dama toog a ak sama ne mais lii dara jaru ko bu fekkee ne bëgg théâtre rek moo tax man séntu moo ci woon lii foofu sur le champ dama découragé woon completement ci nit ñi parce que yi ñu doon wax ku ci nekk doo ci dem sax ak par quatre chemins da ci dem ba nga xam ni dangay ngay kontaan ci yow war wane ni waxe nga ko ba neex euh, lu ñaaw la ñuy teg sama dara te maa xallaa maa xallaa ji bari bari bari ba nga xam ni ni xolu maa laa yore woon vraiment ci natt rek. mu metti ma nag ndekete yow kooku muy kuy dundoo da ngay am ñu la bañ ak ñu la bëgg ba commencé di philosopher tension bi wàcc ci noonu la du sereel lépp parce que ba ma nekkee arena déjà euh, spectacle ba ba nga xam ne génn na nit ñuy suivre ko dañu kontaanoon donc. Euh, euh, mais après vraiment la réception ak lu ñu doon wax yooyu yëpp boobu ñibbi seeguma Dakar j'avais le cœur gros. ah donc bi euh, demoo leen directement Dakar. non non bi accident bi amee fekk nañu ci yoon wi accident bi ñu fekk ci yoon wi mais loolu bi koy nit ñi di wax ak xalaat yooyu dañ ma ko jottali ma yegg see Dakar lañ ma ko jottali ne ma boo déggoon di nit ñi di wax vraiment c'est extraordinaire ils ont apprécié le spectacle. mais li ñu lay yekk moom tuwaar fakal la macha allah. mais ñu bari image bi leen gën a jaaxal mooy euh, nan la père def ba ba débrouiller ba ba wéeru ci je crois que tali la walla image boobu en fait moo xaw a jaaxal sénégalais yu bari. en fait biñ ma secourir maanaam ñu ma wollu see ko euh, dañ ma yëkkati amuñu fuñ may teg ñu daal di ma teg ne ma defee nul fii anat daan daan sapeur ñëw gis nga li muy yokkale nii ba léegi ci affaire bi <laughs> donc euh, ci loolu ma wéeru ci mur bi loolu doyul nit ñi di romb yore seen portable di filmer donc euh, ça m'a pompé loolu nit koo xam ne nii euh, déjà il est fatigué ah waaw alors au lieu massawu ko déedéet non non ñoo ngi koy filmer waaw joxe information yoo xam ni ku ci nekk lu garaaw a garaaw lañ doon teg sama deroon mais lu garaaw loolu euh, xam man yonent lañ ma tudde alors ma jàng ci moom loo xam ne nii euh, bi mu demee màkk amul lu ñu loon ci daram waaye daf ko muñ daf ko muñ alors ci loolu ma daal ne bon man ma ñu ma tuddee yonent ba pare may mer ci loo xam ne nii amul sens. le wu na ñëw seet si la vraiment loolu c'est à saluer aussi. no non kooku avant président di ñëw la parce que euh, bi ma ye bi ma yegsee hôpital ci la président yegsi mais avant président di yegsi j'ai tout subi comme ça ñu bàyyi ma foofu à l'air libre. ñuy romb di ma filme di ma photo sama toogaay bi ma toogoon noonu ak samay tànk pour ñoom accidenté na mais wax jeexagul donc lu nekk lañ ma yekk jël sama image yekk ma lu nekk yore seen portable di filmer Lamine Ndiaye mu toog je di suis dit Lamine kan lii dal ñenn yi rek moo ma dal donc naa ko muñ te ngir yàlla rek moo tax lépp ci loxo yàlla laa koy delloo man man dama nekk koo xam ne nii kooku gëm laa xam naa ñenn ñi ga gënuma leen gëm yàlla mais am na yenn situation yoo xam ne nii sama force yëpp mi ngi nekk ci ngëm-ngëm bi dama ko gëm ba di ci xaabaabal di ci ëppal parce que fi ma teg suñu borom la kenn mënu ma teqale moom te kenn mënu ma saaditloo ba ma koy yekk lu toll ni xamee wala ñàkk koo gëma di ba am tooxi doonu daal yoo xam ne yi mun a cee jaar wala mu tukkee ci. bi accident leen jëlee foofu noonu par la lañ leen yóbbu bon hôpital aussi ndax sapeur tamit euh, teeloon na ñëw aussi. principal non non xam nga circulation bi dafa xatoon ñun fi ñu toogoon dañu jékkee rek dégg bi pin pim pom pim pom pim pom ba mu ni mu yegg si boobu da doon dégager oto yi pour ñu may ko mu jàll. pour mën a jël s'il y a d'autres yooyu mais comme man maa fa nekkoon ak chauffeur bi jël ñu ñaar donc euh, yóbbuñu donc euh, yooyu yëpp dafa nekk ci film bi nga xam ne nii lu doy waar la donc euh, ba bi ñuy jël si daal ñun loolu ñu ci am man ma dugg ci oto bi di waxtaan ak chauffeur yi di waxtaan ak sapeur yi di waxtaan ak sapeur yi ñoom sax ñoo ma calmé ci yenn situation yi wax ma ne ma grand yow li nga siiw la quoi. fokk nga comprendre yenn yi ma ne ko non comprendre daa mais nit ñi yenn saa yi dañuy xaabaabal ba ci nettali yoo xam ne nii yegg si guma Dakar di dégg yooyu man génn guma ci li ma nekk xaw ma ndagam bu ma yóbboo foofu après damay dee wala lan ñu ñu commencé di wax di xaabaabal man ñi comme dañu ñeme yàlla naa leen bàyyi yàlla waaw te ngir yàlla tax waaw lu ñu wax baax na parce que j'ai toujours été comme ça bon man da nga may yëkk lu ne ma bàyyi lag yàlla parce que yàlla mooy faj moytu yàlla gu mu faj la mooy gën a garaaw li ngay wax nit ki mu ne pat boobu mu ngi lay bàyyi la daa loolu nag boo ko xamoon doo ko waxal mukk di nga sang daram ba ma sëg di wax lu baax ci moom man loolu lañ ma jàngal loolu laa xam donc euh, ma négligé yooyu yi ñuy considération yi nga xam ne d'ordre mineur laa ko jàpp sax daal di toog ci oto bi rek di waxtaan ak sapeur yi seen bopp ñu fa nekkoon ayee sax boo leen laajee loolu la ñuy wax grand bi eh, il a été courageux jusqu'à la fin parce que am na ñoo xam ne nii bon même bu leen dara jotul sax ñu yëpp leen ci kii rek eh, dañuy dem ba saalit seen bopp dootuñu ñàkk gëm suñu borom daal di ñëw lu nekk ñu xalaatel ko seen bopp te xalaatel sa bopp yu ñaaw warula en tant que jàmm en tant que jullit donc euh, li ma war a yëpp en tant que jullit man yooyu laa doon jéem a exercer dans ma ba xool ba xam euh, nu wànnanti di mu jékki ba gëtam waaw euh, à la place de bët on dit gët gët mooy ñaari bët bon bët moom benn bët la donc c'est ça noonu la accident bi demee réception bi wax naa la ko donc noonu la ñu continuer daal ba biñ may faj biñ may faj luñ ma def dañ ma dem yóbbu ma euh, ci benn salle boo xam ne pour xool su scanner lañ ma defal en entier vraiment seet yaram wi yëpp ndax amul damm-damm amul xoos-xoos lu nekk set nañ ko bi ñuy def scanner bi ba tuwaar fukal macha allah euh, foto nañ lépp ba ci bopp bi sax dañ koy scanner bon après loolu qu'est-ce qu'ils ont fait ils m'ont retourné à la salle ma dem tëdd yaaxan ñu jox ma ay comprimé ma naan daal di commencé nelaw ma xam ni yii am na yu mu àndal yoo xam ni day gaaw a nelaw loo nit pour ne pas me faire penser trop à l'accident donc c'est comme ça que ça s'est passé ba ci gannaaw ëllëg sa quatre jours après on m'a libéré on m'a libéré bërki démb laa ñëw suma kër ñëw man si ça qui m'intéresse sama waa kër lan lañ nekkee woon li ma nekk hôpital yëpp kër gi laa doon xalaat parce que dafa am lu ma warloo ak waa kër gi loo xam ni lu ma war la lu fondamental nga xam ne war naa ko def ci kër gi chaque jour muy dépense bi te xam naa ni yorewuñ ko mais daal defal na ma sutura bi nga xamee ni nii trouvé naa de quoi jox sama waa kër donc depuis l'hôpital je leur ai envoyé une dépense di ci nekk di ci nekk di ci nekk di ci góorgóorlu ba ni ma Euh, pare examen yi après daal di ñibbi si comme sa que ça s' est passé si des moom maa ngi koy gërëmee suñu borom sant ko ak képp koo xam ni am na yéene ak xol bu laab yërmande euh, wax dëgg fa yàlla comprendre ma ci li nga xam ni dal na ma mais nañ ma ñaanal ko moo gën parce que nag je vais révéler une chose Mouhamed lañ ma tuddee sallallahu alayhi wa sallam comme kuy wax ak kuy jëf na nga xam li ngay jëflante doomu lakkat la bambara pire la li ñuy wax fii ñoo ko <coughs> li ñuy wax na ñoxo ñoxo yi donc euh, qu'il fasse attention nit boo ko xamul ee eh, rek nga koy wooye mais nañu moytu te ragaloo ma kenn parce que am benn pouvoir mais daal nit kenn du ko tooñ lay ñaanal yàlla na la yàlla euh, gën a yëkkati bàyyi la fi ba si kanam kanam parce que yow moom vraiment doyen nga boo xamante ni sa nekkin fii euh, amal na njëriñ sénégalais yi rawatina ñun jeunesse bi ah euh, damay ñëw ci li xamante ne moo xewoon arena tey c'est la première fois ñu gis meeting boo xamante ne entrée la ñu gis mu nekk gise fermé par rapport ak tey sénégalais yi niñ ko doon xaaree naan cagnotte bi ah, du fees fii ba jam ñaaja mais dañu gis vraiment embouteillage bi nga xamante ne am na fa naka nga jàngatee mbir non mais man loolu bett ma parce que dama xam kan mooy Sonko nu woote mënti mel nit ñi dañuy ñëw wuy si ko parce que fulla gi muy àndal fayta gi muy ak am xam-xam li muy àndal moo tax nit ñi topp ko Sonko du fen du nettali Sonko dafa nekk nit koo xam ni dans sa simplicité te sénégalais loolu la bëgg te xam dafa xam fi muy jaar sénégalais yi xam ni muy communiquer ak ñoom qui est très important sénégalais boo ko xamul nga communiquer ak moom di notre façon boo xam ni nii communication bi amul benn yërmande gisu ci boppam c'est-à-dire fu lalu loo ko compté wuloo ko mais du la mën a topp da lay sax danaan kii dafa yabaate daal di soofal sa communication ba nga xam ne sa dayoo sax boo sàgganee di nga ko jàkk safo gi ko nit ñuy safo mooy dëgg gi mu àndal di ko wax waaw dong nag te loolu puissance la boo xam ne nii su nekkoon un tey puissance quatre laa koy tuddee loolu moom nañu xam ni bu nit ñi àndeek moom rek c'est que dëgg gi muy wone dans sa façon de communiquer te lu mu la wax dina ko def man lu ma xam na ci moom lu mu la wax ni ci tey nangam nii loolu dana ko def kooku mën naa ko témoigner parce que nag yàgguñu lool am na yu ma xam ci moom parce que nee naa ne benn xaritam moo takkoon sama doom bu jigéen donc euh, yàlla dox ci diggante bi xëy na mooy tudd dund dund diggante mais mais bu jeexee kenn ku nekk day demal boppam mais terewul vraiment la mu daan def ci moom dem bërki démb mu ngi koy continuer day def ba léegi cest à ñoom ñoo mel noonu les douaniers booy sëy ak ñoom dégg bu fekkee ni am na bàyyante bu dox ci diggante bi ngeen am njaboot dañu continuer di toppatoo njaboot yi di doon toppatoo ci seen règlement la nekk quoi donc loolu rek la. tey Sénégalais fi ñu ko doon xaaree surtout cagnotte bi ah ñu bari doon wax ni est-ce que lii c'est normal war a dem ay élection di cagnotte ak yu demee noonu tey mu mel ni ñu bari dañoo am surprise aussi. xam nga loo ma waroon a laaj cagnotte bi lu koy dundal. naa la wax ni nit ñi seen bopp ñoo koy duddal ba pare di laajte loolu parce que mësuñ ko gis lu ñu mësul gis rek la soog di indi chaque fois que les gens se la question cagnotte bi pourquoi waaw te dañ koy def donc dañ toog di ko waxtaanee ñoom obligatoirement ñoom <laughs> ñi koy waxtaanee dem di cotiser donc loo xam ne mu fu musul am kenn musul gis loolu euh, parti kay boo ko xasee ba sos di wut euh, siis bi nga xam ne nii mooy siis bi yànj bi siis bi sut ci siis yi euh, généralement yow yaay investir dugal ci sa loxo bon la plupart du temps li ëpp sax ci lay jógee parce que budget la laaj alors ñoom seen budget ni ñu koy wutee mooy ci nit ñi nga xam ne nii bëgg nañ partie bi te loolu dafa dëggu mais loolu la euh, ku jub di def parti bi soloon na la soxla na cagnotte boo xam ne nii moo koy yóbbu ci yenn euh, aal yeeg yenn béréb yeeg yooyu ak mun a defar campagne am comme il le faut mais boo ci taxawul di def kan moo ciy def gis nga lu dëgg loolu ngëm-ngëm la indi si nit ñi yàqul dara ci li le fait que ñu bëgg Sonko u ñàkk ko bañ bëgg képp koo xam ne tu es conscient que ni Pastef nga bokk alors tu vas cotiser soo ko mënul daal laaj laajuñ la ne forcé wuñu mais loo mën nga def ci ah, mais à partir de mille francs par exemple boo amul woon 1000 francs sax di nga ko wuti ñi leb ko ba beneen yoon nga xam ne di nga ko mën a fay nga fay ko donc c'est comme ça qu'il marche ah y a rien de diable là-dedans croyance moo fort te ñoom foyewuñ ko uti tu crois nga toog ou tu ne crois pas ah euh, neexaluñu de. waxuñu kenn leen mooy euh, jàmbure ci seen communication kon nag nañ nit ñi delloo leen loolu jàmbure ci communication bi soo mënee nga def soo mënul nga bàyyi forcé wuñ mais ñu gis ci benn image boo xam ne vraiment touché na Sénégalais yu bëri ah, la fekk fait que Sonko euh, euh, nekk ci pëjëm bi di wax am benn maire bu toog ci pousse pousse ñëw di wax ak moom Sonko bàyyi li mu doon def ak grandeur am wàcc ci podium bi dem nuyu maire bi ñëw yéegaat ñu bari aussi image boobu touché leen. Euh, lu ëpp loolu sax mën na ko def Sonko ce dont il est capable dépasse l'imagination seulement il faut le connaître nit ñi bu ñuy politique di ko defee nii nañu tàmmee woon di gis politicien moom mu ñëw changer loolu yëpp am na ñoo xam ne dañ daan léemu les quatre points cardinaux moom bi mu ñëwee moom yooyu yëpp nekku ci wax dëgg nit ñi tëral ko fu wóor eh, ak eh, nit ñi di ko seetlu li mu wax toujours da koy respecté il n'est pas comme ce genre de politicien nga xam ne lu ñu wax duñ ko respecté ba pare di gëm loolu nit ñi ca ñoom gëmuñu dara yooyu la bannir dindi ko ci kawam ba mu set wecc léegi nag boo fekkee ni yow mënu loolu ah ñu xam ni rek ni eh, donc puissance 4 boobu ñoom ñuy wax donc doo ci mën a bokk quoi waaw donc euh, c' est comme ça que je vois les choses. bu euh, ñu nañ ko def respecter seen kàddu ñu jéem aussi tamit ñëppay bokk ci jéem bi bu ñu jéemul moom ñëppay bokk ci ñàkk jéem waaw ñoom daal doon liñ mel waaw boo leen xamul nag léegi leen dëkkal fu ne mais ñoom fu ñu yàgg dëkk te mos fa dëkk nekk fa lool nit ñaa koy gis te du waxi neen bu ko jàppee ne waxi neen la wala jëf la nii rek dafa bari ay furbari yu làq ci suuf non non yaa ngi nax sa bopp di fooy sa xel. Ah. mais ba tey ci événement tey bi ñu gis ci Bougane euh, génn doon dem Bakel euh, à nos grandes surprises ñu gis digganteem ak gendarmerie ba finalement ñu jël ko dugal ko ci oto bi yóbbu ko euh, ñu bari ni tey en tant que président wala nekk Bakel. Bougane est-ce que yoon la mu fay dem ñenn ñi est-ce que nekkul stratégie politique ak yu demee noonu. waaw euh, lu ne mi ngi ci stratégie mi ngi euh, am na ñoo xam ni dégg naa leen ñu naan c'est un provocateur non Bougane day politique day politique te bëgg nañ ñu xam ni li muy wax da koy def dafa nag ay risques risque yooyu lay wax wan nit ñi ne il est prêt à prendre ces risques là te ragalul dara du noonu du noonu lenn dafa am mooy dem ak xel waaw dema ak xel bañ nekk un provocateur parce que rien ne t'oblige à être un provocateur mais quand tu le fais tu vas rencontrer d'autres provocateurs euh, sur le terrain te doo ci mën dara donc il vaut mieux éviter ces choses parce que dafa yomba trop nga defee noonu te nit ñi dëkk la foo xam ne dëkkoo fa moi je connais bien Bougane mais noonu ma gis muy def du noonu laa ko xamee woon mën na soppi nag wala nit ñi di ko conseiller loo xam ne nii c'est pas lui man dama bëgg Bougane bu serein bu miin la mu daan def mu di ko def avec noblesse te toog fa mu toog waxuma mu toog parce que fait de la politique euh, sañ na dem campagne kenn terewu ko mais le comportement qu'il a maintenant man daf ma jaaxal euh, dafa mel ni ku déglu woon fit bëgg a indi fit boo xam ne nii dafay xaw a bizarre ci gis-gisu nit ñi te man sax dafa xaw a bizarre c'est pas parce que je suis avec Pastef non non non dama bëgg a bu ba woon il est il savait conquérir les gens sans se fatiguer amul gox mu demul fii ci Sénégal c'est le seul d'ailleurs puissance 4 boobu nga xam ni moom la jëloon doon ci kii il nag qu'à continuer avec pourquoi changer am na des troubles fii nit ñi dàq fii ñi daw ñi gaañu ci ñi waaw topp ko topp ko topp ko ba nga xam ne li liñ ciy jëlee sax finalement ay méthodes la yoo xam ne nii c'est pas Bougane ça xaw ma kan moo ko xelal loolu xaw ma kan moo bëgg a bëgg Bougane doxale noonu mais man day euh, c'est je suis son grand frère et je peux le je crois pouvoir le conseil méthode boobu mu jël ba muy indi ay rëq-rëq comme mu ne bàyyi daal mel na mu meloon mooy gën foofu parce que il avait conquis euh, conquis beaucoup de beaucoup de gens véreux qui ne juraient que de Pastef ou même de, du PS ou d'autres partie Donc, euh, il n'a qu'à continuer dans ce sens. Il pas qu'il emprunte le, show et le naturel. Bon. xëy na bu ko bu ci opté bon euh, d'autres l'auraient conseillé autrement tel que man par exemple xaw ma ndax dina ma dégg wala déet mais daal dama koy ñaan ne ko bu mu dem ci genre affrontement wala tension ak yooyu na mu melum daal na ko mel man j'aime bien ce Bougane là nga xam ni na mu meloon il était quinze mille fois plus réfléchi te du toppandoo kenn moom da eh, dafa amoon style am te ñëpp xam nañ ko loolu pourquoi chercher autre chose. opposition opposition bi ñu bëgg a teg nii même pas six mois ndax jàppoon ni teel na. non teelul opposition bu ñu bëggee teg nañ ko teg mais nag dangay xam fooy jaar saa waay ba mën a teg opposition boo xam ni sereine lay def. du va-t-en-guerre, une opposition euh, à la va guerre non boobu baaxul ci réew mi soo bëggee Sénégal doo def va t guerre parce que du jur dara si jàmm yi fii moom la ñëpp bëgg mais nag c'est pas de l'agression jàmm bokkul ak agression dara mais soo demee ba nga xam ne agressivité boobu moom nga bëgg na tàng na tàng na tàng loo ci góobee gar ko mais fayul dara fajul dara fayul dara fajul dara. man daal politique noblesse lan laa njëkk a xam te man xaw sax politique parce que révolutionnaire laa woon ba ma ko daan def dégg nga ñun euh, j'étais plus proche je ay ay lan agi lan PDS xaw ma j'étais beaucoup plus proche de en fait euh, j'avais leur sympathie quoi bon na tàng boobu quoi à outrance na tàng de boobu J'étais comme ça. Mais au, fur, au fil du temps, je me suis dit, c'est pas la peine de crier tout dans son appartement, mais il faut y aller molo mollo, mais d'une manière intelligente. On peut faire la politique sans histoire, ni tambour, ni trompette. mais nga gëm li nga gëm ànd ceeg fulla ak fayda loolu mooy politique mais politique du xeex tout le temps looy xeex jar na koog jaru ko le va-t-en-guerre la faut laisser ça nit ñi dañu béy seen mbir ci jàmm ku la ëpp jàmm moom la dàq policier avec intelligence quoi. mu ngi noonu xam naa ni wax dëgg yàlla euh, euh, toogaay bi yàgg na ma lay gërëm nag papa parce que à chaque fois damay déglu say conseil euh, bokk na ci li ngeen mii conseil mooy di leen rafetal liggéey bi di leen xool li nga xamante ni moom la nit ki di wax ngeen koy bind dee leen xool li nga xamante ne moo nekk ci texte bi il faut pas que ngeen bañ di inventé à chaque fois su ma téewee micro kàddu yooyu day ñëw ci man dama naan li may wax nii balaa nit ñi di ci bëgg yàlla naa ci am yàlla donc idée boobu noonu su ma ko amee grâce à donc nag mënuma toog fii te sali yow ma la sant ma la ci looloo si donc xam naa foofu laay jaaree rek jox la euh, euh, nga tàggatoo waale incha allah. waa xam nga man li ma gën a sopp sama àddina mooy jàmm l'islam sax. mu ko njëkk a digle te fii dëkkul islam euh, mën na rax politique mais politique autrement la politique c'est pas dans du genre va-t-en-guerre quoi il est plus noble gis nga no noblesse la ñuy sant nit ki noblesse lañ bëgg nit ki ànd ak moom di def politique am noblement d'une manière assez noble d'une manière consciencieuse, parce que cette conscience-là, elle ne peut être qu'une noblesse chez le politicien. Mais soo qu'on deful ce n'est pas le va-t-en-guerre, quoi que ce soit. Les Sénégalais n'aiment pas le va-t-en-guerre. Nous, dans la douceur, dans l'intelligence, dans les capacités. Parce que capacité humaine, c'est ce dal pourquoi va-t-en guerre va-t-en guerre sur des choses yoo xam ne euh, qui doivent être et se prononcer d'une manière vertueuse mais aussi dans le calme et la sérénité en général nit koo xam ne tàng na vraiment nit ñi bëgguñu ko sax fii Sénégal mën nañu wax baat bu xuur wala ñuy wax wax ci kaw mais euh, du va-t-en guerre alors cette politique de va-t-en guerre là moom la nit ñi doy la sëkk ñoom li ñu soxla nga wax leen dëgg te mu leer kàddu yu leer ak dëgg gu wex xat même bu fekkee ne de ça peut être une provocation mais euh, c'est vous êtes en politique ça peut se permettre mais pas dans le chaud chaud chaud chaud na tàng na tàng na tàng jusqu'à faire une provocation et des idées chaudes da nga nga def ko ba tooñ nit ki boobu politique moom man personnellement nekkuma ci waaw man te bien pas la douceur ah parce que góor nga c'est pas la douceur qu'on cherche mais la vérité faut le dire aux gens est-ce que tu as besoin de dire une vérité boo xam ne nii avec des paroles chaudes dégg nga mu nekk genre attaque yoo xam ne nii au lieu de réveiller les consciences sur des idées nouvelles et sur des idées euh, qui polie le caractère humain, ou bien c'est dans le chocho na tàng na tàng na tàng na tàng ñi ko fi def yëpp dañ mujjee rigal dañ mujjee bàyyi xam ni loolu du politique bo même boo ci boolee aussi tamit loo ci wax mu ne nous sommes en politique ah ils n'ont qu'à l'admettre dégg nga on n'est pas doux nangam na le Sénégalais dans sa manière de faire il beaucoup de douceur pourquoi parce que la politesse la ñuy jiital la politesse politesse ne elle n'est jamais dite dégg nga dans la violence dégg nga le timbre de la violence c'est ça que les gens ont banni depuis longtemps waaw ah, ont banni donc euh, qu'on est qu'on l'exerce dans le respect le de l'autre mais dans une bonne conscience avec une sérénité boo xam ne nii te ne dis pas son nom c'est une vérité Tu n'as pas besoin de le crier. Les bonnes vérités ne se crient pas. Mais elles s'écrivent. Les bonnes vérités s'écrivent. waaw ah, loolu lu am solo la donc pourquoi pour que l'histoire soit retenue pour la bonne conscience collective da nga il faut des paroles véridiques Sonko loolu mooy force am loolu mooy force am du ay attaque rek tout court mais certaines euh, personnes le prennent comme des attaques ça peut ressembler à des attaques mais des attaques douces c'est ça quoi la différence donc il faut savoir analyser tout ça refaire la politique autrement ne pas être trop agressif le va-t-en-guerre ça n'a jamais arrangé quoi que ce soit nous sommes entre Sénégalais faisons la politique autrement donc loolu moo gën ko waaw. maa ngi lay jaajëfal lu baax a baax. di la ñaanal yàlla defal la jàmm ak salaam. bàyyi la fi ba ci kanam a kanam góor gi. yàlla nañ ko bokk. yàlla nañ ko bokk ñu ñëpp en tant que sénégalais mbégte bàyyi xuloo bàyyi xeex mais di waxante dëgg te yàlla rek a tax waaw c'est bien ça. loolu moom nañ ko wéer politique bi ba pare li ci des nag euh, ñu bàyyi ko suñu borom mooy fale <coughs> loolu la quoi waaw. ayca mu ngi noonu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.